arbitre bi sifflé na Armé Lour ak Cargo ndaysaan mbokk yi Armé Lour moo leen féete càmmoñ Pape Cargo moo leen féete ndeyjoor ña ngay léewtoo ña ngay xoolante ci bët ñoom ñaari mbëri Armé Lour Pape Cargo ndaysaan ñaari mbëri yaa ngi noonu di léewtoo Armé Lour Pape Cargo armée lour Pape Cargo ña ngay leewaatoo ku ci nekk mu ngi xool sa moroom ci bët Pape Cargo dóor na armée lour daa bëgg a jàpp waaye pour nga jàpp faw nga xeex ba noppi ndax làmb daa am stratégie yu koy daam sa adversaire boo ko bëggee jàpp faw nga xeex ak moom làmb balu fetal la des fois ñu séntu la ci fetal nga fit des fois ñu séntu la ci fit nga fetal mbër yi fi dàq xeex ci làmb bu ñu ñëwee dañuy téye seen xeex bëre mbër yi fi dàq bëre des fois ñu ñëw daw bëre bi indi xeex armé lour Pape Cargo Pape Cargo daw na jëli ko takk na ko takk na ko armé lour a koy bëgg mbot wutar na ko daan na ko daan na ko Pape Cargo daan na Armé Lour Cargo daan na Armé Cargo ngi noonu daan na Armé Lour noonu daa sonn ndeysaan Armé jugal nga xamante ni moo nekkoon écurie euh, ma nga nekkoon écurie bi wax écurie Grand Yoff jugee Grand Yoff léegi ma nga écurie lébu gi ndeysaan ma ca Kayar xale yi indi ko gis naa fi léegi ki nga xamante ni mooy sele sele mele indi ko xale yaa noonu di jàppante ba tey lamb ju neex moom la jëy production tëgg Libidor Serigne Ndiaye jàppaat na ko Ndiaga Or jàpp na Gose Ndiaga Or ak Gose Gose bëtt na ko war na ko ndomba oh Ndiaga doo génn Ndiaga Or doo génn lii doo génn lii doo génn ndeysaan doo génn doo ci génn génn Ndiaga lii de boo ko gisee ci làmb sëñ Bas mooy mbër mi yegg na la fu sori ndeysaan lii fu mu dalee mbër doo am sens génn ca ma ngay raam génn saako ya mbaadu day mujjee génn njaga or mbaadu day mujjee génn njaga or da déet njaga or daanu na njaga or épaule ba laal na suuf njaga or daanu na ndeysaan njaga or daanu na ndeysaan Ndiaga Or daanu na Ndiaga Or ndeysaan oo yëkkati na ko da baa nga noonu Serigne nee na jeex na Serigne Ndiaye ndeysaan nee na jeex na Serigne luñ doon xaar ay at di xaar ay semaine Gris 2 jàpp na sama loxo supporter yaa nga noonu Serigne Ndiaye nga te xamoon ne a Bas Assane Ndiaye Gris 2 jàpp xale da nga koy lebal lu baax doo ko lebal lu bon booy suñuy booy lañ suñuy rakk lañ suñuy lépp lañ te ñun bi ñuy ñëw dañoo teg tawat ni yoon bi ñoom war nañ leen mën a jàppale noonu la fa demee foo ci làmb am naa combat ma nag doomu jalaaw doomu jalaaw doomu jalaaw waa taxaw na waaw mais looloo baax looy indi ci combat non combat boobu damay indi jom fulla rek yokk xeex bi tuuta rek rek laay yokk ci xeex bi duma ko muy xalaat ma daan ko ñibbi waaw. ay ko indi. tey maa indi suma rakk Baye Ndiass. waa di ko ñaanal nag booy bi yaru la amul problème di ko ñaanal li mu bëgg si carrière am yàlla na ko yàlla defal quoi man moom ku baax rek ma ànd ak yow mais ku ma ñodd leneen ma bàyyi la maa leen gën a nekk gënuñu ma nekk champion maa leen gën nekk champion mais booy dañoo yaru neex a digal nekk nit quoi noonu la fa demee. waaye Diaz noo waajee tey. wooy waajal nañ ñu war a waajee ànd ak suñ coach su Arona Sall mooy loolu. yaa ma gën a xam noo bëgg bëgg a bëree. combat bi dama bëgg a bëree comme luñ ma wax rek conseil dal ànd ak dal ak tey lu ñu yàlla may ñu jël daal. mooy bëre. maay bëre ak Sabaa. Sabaa bu jàmbaar. bii mooy sa ñaata combat. bii mooy sama huitième combat. yaa di ñaan nag yàlla defal ma ndam bu gën si man. dafa gën a ngemb li Bas. Libidor bis bi la jaral. Libidor maa lay maa ngi lay siyaar. tey bis bi lu la jaral lu ñu xaar ay weer. di ko xaar ay semaine bañ na bis moom li ma jaral baax na su ma ko waroon fi jógee parce que làmb la ñu ñëpp ay ndaw lañ damay ñaan yàlla nag yàlla defal ma ndam si kaw mën naa ko jëlee bu rëy ak sëñ Bamba. loo bëgg da ngaa xeex wala da ngaa bëgg ah, lépp laa ni daal. doon ragal naa la. Vito Ibou ñoom ñaar ku ci nekk ngay ngay def seen débat déeb. ndeysaan. Vito Ibou Socé Vito Ibou Socé ay lamb daa métti buñ la joxee avance say mbokk duñu nelaw duñu tala lekk duñu tala naan rawatina nga dellu ba ca bis ba bëtt na ko Ibou Socé bëtt na ko fu mu jëm moom jàpp na loxo ba ca bopp ba Ibou Socé jàpp na loxo ba ca bopp ba Mame nu muy def dana ci génnam wër ndomba mooy penalty ci lamb door rek mu dugg def na quatre appuis waaw waaw def na quatre appuis ma ngay dajji ma ngay door ndeysaan ma ngay door ma doxu la ilaha illallah daanuwul de sut amul ba tey maam Balla bu soose ña ngay bëre bëre suuf hee maam Balla du ko bëgg mbot maam Balla wet Ndeysaan téye na tànk ba Ibou Socé Mame Balla Ndeysaan Ibou Socé woon na ko ndomba dina ci génnam déet Ibou Socé taxaw bi yàgg na ak gaaw Mame Balla bu la deuxième pied ragal naa di nga am mbégteel Ibou Socé Balla Mame Balla daa bëgg bu loxo bi jógee rek mu mbot ko déet loolu baaxul ci yow. Mame Balla bu mu téye sa loxo Ibou Socé takkee na ko wet ndeysaan Ibou Socé Mame Balla mbër bu toll fii sa chance ci làmb bareetul Mame fi mu toll nii chance am ci làmb bareetul waaye ma ngay bañ rek cey làmb ma ngay bañ rek Mame loxo bi mu jàpp ci kaw day waaj a rëcc ndax lam jàpp dese naa baax dese naa dëgër mbaa Ibou ngay dóor ma ngay dóor xëccaat na ko ndaysaan niñ jàppante metti na yàgg na bësaat na ko ci suuf Ibou Socé ngay dóor Mame Balla wër nañ ko ndomba wër nañ ndomba Mame Balla Ibou wër na ko ndomba Ibou wër na ko ndomba Ibou ko ndomba dóor ah dóor yi metti na ah lii metti na metti na arbitre atteel metti na dóor yi metti na ay bu soose bul dóor ndeysaan dóor yi metti na ah man bëgguma lii oh metti na dóor yi metti na dóor protest daa ba yàbbeeku na ah arbitre bi àtte na arbitre bi àtte na yàbb ko war ndomba di ko dóor uppercut ba mu yàbb prothèse daan ba Ibou Socé daan na Mame Balla daan na ko daan na ko Forza maa ngi lay nuyu waaw maa ngi lay fay bu fan nga nekk tey nga indi sa poulain muy Serigne Ndiaye numéro 2 mu war a bëreeg Libidor lan ngeen ban conseil ngeen ko jox ah moom neex na conseil parce que xam na làmb te mën na bëre aussi te moom mu ngi doon compétir comprendre nga kon kooku dang moom li ci moom ngay tàgg li si moom ngay yee rek après moom mu def li ko war quoi. combat bi tey lan moo ci war Serigne Ndiaye numéro 2. ah combat combat xel la rek mooy dal bu dalee mu def li mu def lii mu li ko war mooy mu ñëw duma waa ji dox ci kawam ndànk raam dox ci kawam jàpp ko daan ko jeex na. day xeex wala day bëre. non lamb lamb la ñu wax dañuy xeex bëri lamb xeex ak bëri la booy ma bëreel booy bi tëlewul booy mën bëri la technique aussi te mbëru mbapat la kon day def li ko war rek waa incha allah. foo nekk ci lamb ba tey gisaguñ la xamaguñu foo nekk Forza foo ne. man maa ngi waajal rek nekk samay entraînement rek. nee na da koy rey nee na dina ko rey. Sirida may ma ma jël. honorable député Mame Diarra Fam marraine baa ngi noonu dëkk ginnaaw raay ndeysaan tey goox bi mu fekk baax moom Mame Diarra Fam baayam moo nekkoon chef de quartier ba muy Alaaji Daawda Fam ñu koy ñaanal yàlla suñu borom xaare ko ci àjjanay firdawsi moom Baay Daawda Fam ndeysaan honorable député délégation Mbouris Mame Diarra Fam lamba ngi noonu ci coow lay commencé waaye ci coow lay jeexe ndeysaan mbëru ginnaaw raa nga noonu ndeysaan baara ibu mécanicien nee na Vito sa loxo. Vito wan na Maroon ak Vito ñoo ci digg géew. Vito moo leen féete ndijoor. Boy Maroon moo leen féete càmmoñ. arbitre bi laaj na leen. Boy Maroon ak Vito. sànni na. Vito sànni na. Boy Maroon a dox ci kawam ndànk rek. Boy Maroon fay na. bu ña xeex ña ngay xeex. Kurbaña. galaaj ya dagg na Boy Maron a fitoo door na ko mu daanu door na ko mu daanu Boy Maron door na daanu Boy Maron door na ko mu daanu Boy Maron door na fitoo sëñ Bas lii war nañ cee wax ci làmb. maroon déglu bi dafa yàgg bi nga déclenché xeex bi. da nga cee sax lu waral loolu. daa foogoon moom daa xeex te man xale bu ndaw laa barki Serigne Touba Mbacke dama liggéey combat bi dama ci liggéey barki alxuraanu karim maak sama entraîneur bi Gana Seras mooy sama papa instant mooy sama lépp teg ma ci yoon teg ma ci code amul lu mu dul teg ci man ma entraîné ci combat bi da ci lu mel. abaatu noo bëre li ma bëree dama ko déglu. dafa foogoon ne bu ñëwee moom dàq xeex te wallaahi azim naa la waxtal de kii nii mooy sama royukaay parce que moom moo yor moom moo yor lépp boxe ak lépp moom moo ko ak physique lépp barki alxuraan ko ne ma teel dàqul xeex bu xeex ak yow nga moom bu bëree ak yow nga moom. léegi bi ngeen xeexee ba arbitre sifflé da ngeen a déglu lu yàgg déclenché xeex. loolu yëpp moom mi ko conseillé quoi. noo bëree moom moo ma ne sa adversaire déglu ko. bul farax faraxee làmb a ngi ñibbi. dafa ñëw bu mu ñëwee taxaw nanguwul tamit jël risque mu dox ci kawam taalal ko garde bi taalal ko garde bi dox ci kawam mu affolé ma dool ko ma yoxos ko coup mu fay ma dool ko hypercule mu kaaw de coup bi dal na sant naa dal na parce que man mi ko xam naa ne dal na sama ASC nag dafa dem final si te soti ba ñaan nag yàlla nañu ko jël waa Pikine ñëpp maa ngi leen nuyu di leen ziar Soba ak Jofi Diaz mbokk moo leen féeteen di joor Doffou Diaz moo leen féete ñaari xale yaa ngi noonu ci diggi géew bi Doffou Diaz sànni na Doffou Diaz jël nañ ko Saba jël na Doffou Diaz dana ko yëkkateem déet yëkkatee door na ko ci suuf Doffou Diaz Saba daan na ko jël bu rëy Saba daan na ko jël bu rëy Saba ndaanaan la sëñ Bas Serigne bee ngi noonu kii mooy Serigne Serigne Ndiaye numéro 2. ndeysaan ànd ak Serigne Ndiaye numéro 2 di ko ñaanal mu ngi yor benn galañ bu ñu ëw bu am karaw rango ay sengoor sëñ la sëñ Bass Serigne bokk na ci làmb waaw waaw waaw ci làmb la bokk ndax nag c'est pas pour rien ah depuis ba léegi ngay gis mbër di ànd ak Serigne mbër fësal ay gàllaaj mbër di def yëfi yëfi yëfi yëfi yëfi yëfi yëfi buxaaba sax lay wax ci làmb day wane si la bokk te it xam nga mystique ci làmb dafa am dafa nekk volet bu am importance importance yi mooy lan mooy psychologie bi d'abord bi muy jël parce que ñëpp dañ ko gëm ñi nekk ci làmb yëpp dañ ko gëm mu jël benn place boo xam ne nii tey li ñu jàpp mooy làmb mënul la dem sans mystique mystique rek mooy gunge làmb mais làmb mënul dem sans mystique loolu nag gëm-gëm la boo xam ne képp koo xamante ni gëm nga ko boo ko bàyyee ginnaaw rek pour yow euh, defoo defatoo làmb mais képp ku ko jël en compte aussi pour yow yaa ngi ci dëgg-dëgg làmb mais lu mu ci mën di doon sport de combat la sport de combat mooy la forme mooy la physique. mooy aussi compétence bi nga xam ne mooy nekk ci athlète bi loolu mooy def différence mais buñ jëlee lépp wekk ko ci ay bitel rek loolu du sotti baa ji lii. soñ bas mbër bëre combat ñu jox ko avance 40 millions mu ne lamb ji def naa ci 30 millions ci mystique deseetuma dara est-ce que loolu moom xel nangu na ko. ah man de sama xel nanguwu ko parce que nag sport bu mën di nekk slogan bi sportif bi war a mooy sport business comme ni ko Tyson doon waxee parce que sportif yi bëri na ci ñoo xam ne nii moom la ñu def métier te mbir boo ko defee métier la nga koy soxla mooy di ci jël loo xam ne ci ngay dundale sa njaboot ci ngay dunde sa dund nice mais ci ngay dimbale ñi nga war a dimbale mais boo demee ba léegi sa liggéey bi nga xam ne moom ngay liggéey la nga ciy jëlee di ca for as tuut jëriñatu la lenn boobu bi sees man xamatuma ko te boo jëlee li ëpp ci sa kase jox ko li nga xamante ni moom mooy sëriñ man damay daal di yéemu parce que dama naan kii est-ce que bëgg na dara ci làmb ndax nag làmb ji li ci ëpp importance mooy kase bi nga xam ne boo ko jotee bu weesoo mu war a mën a changer dara ci sa dund parce que sa métier la. mbokk yi dimanche 22 décembre 2019 stade Diom Iba Mar Diop arbitre bi woo na leen journée Dieye production moo ñu fi indi. combat spécial bi Mor Kang Kang moo leen féete ndijoor Aw Soddu moo leen féete càmmoñ ngemboo ngemb bu ñuul bi Mor Kang Kang ngemboo ngemb lu weex li tent bopp bi sànni na Aw Soddu Mor Kang Kang ma ngay door ci suuf ma ngay door kaawo mbaa kaawo du am Aw Soddu ngay door ci suuf ee lamb ay ay door yi metti na waay ay waay door yi yéene ko sama waajo sëñ Basiru waay au sud du Mor Kanka xool na ma ma yàgg na ma jiili dama bëgg a ci làmb moom sëñ Bas ma ko sëñ Bas tey ngaa yem ci saraax ci biir kër gi saraax ci xeexoo làmb jël na au sud du Mor Kanka jàppante mbaa chute am ña ngay def na ko tël na tànk ba daan na ko Mor Kang Kang daan na ko jël bu rëy eh ndeysaan oh ndeysaan bi bëre bi façon bëre non bëre bi bilaay sant yàlla rek di sant yàlla rek barke Sëñ Bal damay sant yàlla bu baax a baax a baax moo da nga xeex ba ma yaakaar ni da xeex nga bëre def deux temps yu am yu baax li ma àndal la li maa ànd ak moom billahi lu war a bëree tey. waa xaw ma moom suñu gars wax na loolu moom dafa war a ñëw rek appliqué ko parce que liggéey na ko yàlla may ko ndam incha allah. fan nga nekk ci làmb ba léegi gisaguñu déggaguñu combat wu général looy xaar. waaw xam nga mbëri ñoom dañoo bëgg lu nooy dafay dara nooyul. comme ñan. bëri na. ñan mooy sa copain walla. kan la xaw ma ko. non bëri na ñun ay morom la ñun dañoo war di bëri rek. laamu ñu moom ñaar moo am da ngay bëre général mu daan la wala mu daan la rek nañ ñëw ñu ñu bëre ma daal la. damaa bëgg nga wax ma général bu faas kan la bëgg bu subaa ma seeti ko. non man xama sama génération ñi nga xam ne ñoom laa war a bëreel gumbay sax xam nañ ko. mooy ñan bëri na. da ngaa ragal fi nga jëm. non ñu tudd tur parce que sama morom yi dañoo bëri naan yàlla defal jàmm rek ñu bëgg bëre ñu ñu ngi si. ñu ngi may bëgg sa combat waaw ñu ngi may proposé ay combat mais adversaire yi ñooy tuuti rek. man ren di nga mu cachet aw ma problème mu bëre ndax xam xaalis mënu ma ko am tey moo tax maa ngi rek di daas fanaanal ba ëllëg. jaajëf jaajëf jaajëf. ngir ba tàng na. ndeysaan faas ndeysaan. doo ngi noonu ndeysaan il est trop confiant Serigne Ndiaye jox nañ ko nen dem Serigne Ndiaye 2 ma noonu arbitre bi sifflé na Serigne Ndiaye tàccu na Serigne Ndiaye féete gauche walla ginnaaw moom ngeen jàkkaar lool dimanche 22 décembre 2019 Dieye Production stade Jom seere na la pataake bi Serigne ngi dox ci koom cokkaas na Serigne Ndiaye na demee nañ wet Serigne Ndiaye ña ngay xoolante ci bët Serigne Ndiaye door Libidor ndeysaan Libidor Serigne Ndiaye doo Libidor door na Libidor door na léegi hee lamb jokkaas na dinañ xeex door na ko mu daanu door na ko mu daanu Serigne Ndiaye door na Libidor mu daanu Serigne Ndiaye door na Libidor mu daanu Serigne Ndiaye door na Libidor mu daanu door mu daanu ma ngay jooy door na li mu door. man Gambie laa jógee Serigne laa ñëw supporter ba la doon waxa moom ma ñëw jógee Gambie dem ba ci guddi la agsi xamoon nañ ne lii ndam dina am. kon Serigne Ndiaye moo la jaral nga jógee ba Londres ñëw fii ci ngir làmb. noo tudd. Mohamed Silla. waaw suma doom la suma doomi xarit la kontaan nañ trop vraiment. noo gisee carrière ci làmb. avancement rek rek kii maa ngi ko classé ci Balla Gaye numbel num dee boree boo ko gisee rek doo ko mun a ñeme c'est pas possible comme gaynde lay nekka mu ci en avance en avance rek voilà merci jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan wasaare lamb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte wan leen lamb ji amoon tey dimanche 22 décembre 2019 Dieye production wooñu fi boole ñaari ndaanaan Serigne Ndiaye 2 bu ak ki nga xamante ne mooy Libidor mbokk yi gis ngeen lamb du biir day xëy rek wasin li lay wan ni ku la wax maa gën a xam lamb rek sëñ Bas nee ko bàyyil ba dimanche Serigne Ndiaye numéro 2 ak Libidor Libidor daan na ñaari yoon Serigne Ndiaye bëre simple waaye tey bi ñëwee fii ci stade Jom Iba Mar Diop fa la ko Serigne Ndiaye dóoree li nga xamante ni mooy mu daanu mu jël coup recevoir coup bu métti moom Libidor mbokk yi loolu la leen tàggoo tàggoo bi nga xamante ne moo di tàqali ko abonné leen sur wasaare làmb seen mbégte rek mooy suñu bànneex lépp lu ngeen bëgg dinañ leen ko dégtal ci revue de presse bu neex ci ITV e yu neex ci lépp loo xamante ni day njariñ làmb wasaare làmb moo leen fi nekkal ñun la ak yéen guerre bi du mus a jeex jaa ngeen jëf sama gars yi one love